lu nit ñi bëgg bëgg bëgg bëgg sax mbaax dañ lay gërëm di la sant rek waaye kenn du dogu nangoo day ànd ak yow ci sa bàmmeel même sa sëriñ bi nga jébbalu bu ñu ba bàmmeel foofu la yem taxaw ñaana la jàll yow loo gëm-gëm sa sëriñ buñ ko suulee da ngay jooy jooy jooy jooy ba sa xol jeex mais saa yoo demee ba sa xol jeex ci jooy nga jóg sangu lekk fàtte ne kooku dina na yàlla na ko yàlla yërëm rek nga ci teg te doo nangu lu boole leen doo nangu mukk ñu doole leen yàlla na ko yàlla yërëm googu nag yërmande yàlla nag dafa am fu ñu koy sàkkoo mm-hmm. yërmande yàlla dafa am fu koy sàkkoo mooy toujours rek ne nit ñi dimbalante te bëggante tey waxante lu baax tey defante lu baax heure bu ko nit ñi defee te selal heure bu ñun ñaane yàlla mbir yi nangu. tabaarakallah ndax mag ñi fi loolu am solo la. loolu moo fi nekk. Mhm. ndax mag ñi fi nekkoon bu njëkk seeni mbir yëpp dañu ko joxoon yàlla waaye jox gi ñu ko joxoon yàlla mooy du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg ci seeni kuréel sañuy fanaan di ñaan di ñaan di dawandiku riba di moytandiku lu bon di moytandiku lu ñaaw ba am cër ci yàlla su jubóog yàlla ba nga xamante ne bu ñu ñëwee allahuma rek yàlla nangu Hadj Malick am na mbir am na nit ñoo xamante ne seen mbir aajowul sax euh, di bind lu bari wala nga wér lu bari am na ñoo xamante ne ñoo neex a te tey seeni tur boo ko tuddee am looy ñaan yàlla subhanahu wa taala am na looy ñaan rek yàlla wane ne seen seen mbir seen mbir nangu na ndax ñu ñu dañoo sellal te ñoo sellal te dañuy def lu baax te wax lu baax ndax dama koy wax toujours ma nit koo gis sax muy xalaat naan ëllëg samay xalaat sama sama sëriñ ramuma ca àjjana may la wóorul fexe la def lu nga xamante ne sëñ bu lay ràmmit yow nga bokk ci ñi nga xamante ne am nañ sang na sëriñ si bu ñu jël nit ñi leen dugal àjjana it day fekk ne yow maanaam yaa ngi cee am 10 ñu romb fi borom 100 points 90 80 di la yóbbu am na ñoo xam xam nga jóge xam fi nga jëm wa maa wal insa illa liya'buduni yàlla nee na bindum ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma jaamu gi ñu koy jaamu nag saa yooy jaamu yàlla sax biig na yow sax jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla yàlla daf fee am dara yàlla jaamu googu dala koy joxaat du ko bëgg hmm. yàlla dafa bëgg ko ko yëg yëg gi nga koy yëg mooy saa yoo taxawee julli xamal ne yàlla moo sataane julli moo la moom moom julli te yow miy julli lana leer na sax file fi ngay jullee bu neexee yàlla bala ngay kàbbar yàlla jël la hmm. loolu saa yoo ko defee sa xol te gëm ko te wóolu yàlla yàlla say mbir mën na koo defar ci àdduna mën na ko defar ci àllaaxira hmm. ndax yàlla dafa bëgg ku ko yëg damay faral di wax ne kenn moo bëggul ku ko yëg mooy ab sàcc sàcc rek moo bëggul ku ko yëg ndax saa yu sàcc boo ko yëgee rek loola loola yàqu yooyu nag dafa am yoo xamante ne dafa rafetul. mooy def yu ñaaw wala wax yu ñaaw. Ah. wala ñëw ci nit naan ko dama bëgg nga jël ma nit place am wala dama bëgg nga faatal ma nit wala dama bëgg nga defal ma nit loo xam ne loolu rafetul. Ah. nañ bàyyi yooyu kuy ñaalu ci nit ñi da ñëw di ñaalu ci lu baax. di ñaanlu ci lu sel di ñaanlu ci loo xamante ne moo lay yokk wala moo lay musal wala moo lay aar ndax jullit bu nekk mën ngaa ñaanlu ci lu lay musal mën ngaa ñaanlu ci lu lay mën ngaa ñaanlu ci luy ubbi say mbir mën ah. ngaa ñaanlu looy avancé loo mën ngaa ñaanlu ci looy yokk wala looy yëwtut mu tëw a sotti nga ñaanlu yàlla jox la ko waaye di ñaan ci nit loo xamante ne gënul ca wóorul mhm. ndax yàlla nee na yenn saa nga bëgg dara loo xamante ne gënul caw wala yenn saa nga bañ loo xamante ne moo gën ci yow. asa an tuhibbu wa asa an takrahu loolu moo nekk mhm. ndax nit ki nga xamante ne yow yaa ngi fekk muy xam nga boo ñëwee fekk Hadj Malick nekk dese si yàlla mën naa dogal ëllëg ma jël place am mhm. waaye mën ngaa xam ndax yow say mbir tax yàlla boole nag moom ndax nit koo gis ci àdduna am na koo xam ne moom la yàlla rusee damay wax sax ne sëriñ boo sëriñ boo gis wala kilifa goo gis mu yilif fa mu yilif na ko leer na ñamu yilif am na ci koo xamante moom la ko yàlla rusee te xamu ko. walaay ndeysaan wax nga dëgg de. yaa ngi koy minimiser tuuti tuuti rek boo ko minimiser rek yàlla wan la ko. yàlla rocc secret ba yàlla rocc ko. nga dëgg dafa am ay jamono ci waa bani Israël dafa am koo xamante ne doon jullit am ku ñëw di sàkku ndimbal bi waaj ñëwee taxaw ci bundu kër gi sàkku ndimbal doomu waaj ji dégg ko comme ñoom dañoo bëri woon xaalis doomu waa ji bu jigéen dégg ko bi mu ko déggee ñëw sarax ko ndekete loolu naqare na baay bi hmm. baay bi jàpp ndaw si dóor ko ba pare dagg loxo bi eh. bi mu daggee loxo bi yàlla dogal ci la ko yàlla meree ba waa ji xëy yoratul dara mu ñàkk bi waa ji ñàkkee dara nag jamono di dox domana di dox ba alal ja waa ja yoroon yàlla tuxal ko ca bàyyi ndaw sax hmm. yàlla tuxal ko ca moom yàlla dogal ndaw sa dem dem ba mujj ñoom it nekk ñoo xamante ne ñu ñu ñu yor lañ mais yàlla mujj naa def ba foo kooku toroxaloon kooka doom jooju nga xamante ne moo ko doon moo moo saraxoon waaja doomu mu jigéen boobu mooy dem di yalwaani di moom it di yalwaani ba dugg kër waaja ndekete eh. waaye yàlla nag ci mbaaxam la dugalee ci xolub waaja mu bëgg ndaw sa takk ko bi mu ko takkee nag taxutoon mu xam ne ndaw si dañoo dagg loxo bi dafa dagg bis bu njëkkee toog seen céet bay lekk ñu toog teg taabal di lekk ñoom ñëpp ndaw si téye loxo bi bëgg dugal càmmoñ bi ci la ko jëkkër ji ne nit ku ñàkk daal moo gaaw a beew ne ko yow loo tee dugal sa ndeyjoor bi nga dugal sa càmmoñ bi te càmm loxo ndeyjoor ko dagoon am lu dee ndaw si ne ko dugal sa loxo ndaw si nekk la teg loxo bi rek loxo bi mel na meloon benn xaatif ne ko nag lii li tax nga am ko mooy sarax ba nga saraxee woon keroog ka taxawoon sa kër di yalwaan ci la la yàlla fayee lii. est-ce loolu loolu loolu lu doy waar la. lu doy la moo tax yonent bi wax na ko keroog ba nga xamante ne day génn àdduna li ma El Hadj Malick wax leer na nee na keroog euh, euh, bi nga bi génn àdduna la mu mujjee denkaane ñaar la ñi nga xamante ne ñoo yilif nañu nañu nañu yërëm nañu yilif te ngeen fonk julli kon nag nit ku nekk sa jaamu yàlla sax mën nga ñu ngi sa biir kër wala ñu ngi sa biir service wala ñoom yàlla yilif wala sëriñ bi nga xamante ne sax moo yilif taalibe yi yilif gëm na yilif na yëg ne moom sëriñ bi am na ci taalibe koo xamante ne yàlla rusee na ko ko moo tax mu bàyyi ko lay wax nga dëgg. loolu nit daf koy xam. loolu day am ci kër day am ci société. day am ci kër am ci société am ci lépp waaye tey jii nag bu fekkente ne ki nga xamante ne moo euh, fonde société bi taxawal ko def ci ay moyam def ci lépp ba loola taxaw yow nga nekk fa sa problème yëpp mooy naa ko fi jëlee mu dem wala diw société moo dox sama bos doxul naa ko jëm écrasé mu dem même boo ko écrasé mu dem tamit ba pare yow sa société doxatul foo jëm doo ko am ñaari bàkkaar. Ah, da ngay fexe kay ba société am nam def ba société am di dox nga def ko ba société dox. képp te dafa yomb. pourtant yéen yéen da ngeen di ñaan ci wàllu kurus. waaw di ñaanal ay nit ñi ñi ñëw di leen wax seen ay problème mm-hmm. mais ku ñëwoon tey ne la euh, sëriñ Kandji man dama bëggoon nga yàqal ma diw ko ndax da ko def. waaw loolu am am na sax ku ma ko mës a sant euh, Bamako bi ma demee Mali sama dama fay faral ci sama bàjjen bu ñuy wax Khady Boy madame Traoré. Mm-hmm. ndaw ma booloon ku yor xaalis la bi mu ñëwee wax ma ko ne moom jëkkëram daf ko takkal wujj waaye wujj wi. li mu bëgg daal mooy ku ko faatal hmm. te moom nee na luñ ko ci laaj lu ne mën na koo joxe biñ ma ko waxee làkkal ma ko ci euh, tekkil ma ko moo ko kooku ma ne ko man ñun duñu def lu bon te duñu ko wax suñu diine sant ci loolu ñun ay jullit lañ mu ne kooku waxal sëñ bi ne ko karam waxal karamaxo karamaxo ne ko ñun tamit ay jullit lañ waaye kii mënuñoo dund man ak moom parce que wuj kii mu ma takkal gënalu ma te su ma soyoon mu dem ne ko nag ku ko def dinaa la jox xaalis jox la oto tuwaa rek bi mu ko waxee loolu ma ne ko ñun duñ def loolu bu mu génnee mu ne ki ko indi woon sëriñ bi bëggul xaalis te xam naa du ko gaaw am fii ku fi nekk dangay def lu bon boo dee def lu bon di nga am lu di nga di am xaalis ma ne ko nag di nga am xaalis waaye xaalis boobu est-ce que doo ko fajoo wala ëllëg boo dee tamit yàlla dana la ko laaj. ndax nit ku nekk na xalaat ne sa bàmmeel yow yaa fay nekk